am Ali amaat mbégte bu baax a baax a baax ak kontaante jàkkaarloo ngeen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk ni ñu koy defee ak yéen saasu ne di dalal ay ndaanaan wala ay kilifa waaye tey ñu dalal kilifa goo xamante ne ni ko sénégalais yi dippee muy la solution la solution nag suñu ko waxee mooy nit koo xamante ne képp koo xamante ne rek am nga jàqare wala jafe-jafe sa xel dina dem ci moom ngir mu dimbali la mu am taxawaay bu am solo nag ci askan wi ci solution yi nga xamante ne indil na leen ko ci seen wàllum wérgu yaram muy docteur Abdoulaye Diallo may am mbégte nag tey bu baax a baax a baax toogaat docteur maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la bàyyi nga ndekk bokk internet yi. merci mon frère Kébé. Mhm. di la fay di nuyu maam Ali. Mhm. di nuyu téléspectateurs bu baax. Mhm. di leen baalu àq. macha man moom nee naa ku ma tooñ ak ku ma nar a tooñ même ki ma nar tooñ. baal naa la baal nga leen. waaw man amoon problème boobu. macha allah muy kàddu yooyu am solo waaye comme que li nga xamante ne aussi daanaka li des tuuti ñu dugg ci bëreetul muy li nga xamante ne moo di weeru koor muy weeru jullit boo xamante ne ñu ngi koy waaj. Euh, xam naa ni nag bëri na ñoo xamante ne. <laughs> séeréer yi xamatu ko rek xamuñu si ñemewul koor man moom du ma woor man moom je te dis franchement. Uh-huh. du ma woor. Uh-huh. pas. Uh-huh. du woor mënu ma woor. mais dinaa ñëw ak yow. ci ndox affaire fokkale sax. mais li may mer moo bëri. Hmm. su ma wooree damay saaga rek <laughs> te damay recevoir mbooloo. Uh-huh. bëgguma di woor di di toroxal nit ñi. Uh-huh. di leen mettre mal à l'aise. Uh-huh. kon koor googu baaxul. baaxul je préfère daal chaque jour ma génne soixante mille ma saraxe. mais woor moom. franchement <laughs> yàlla doon na ma koy jéggal koy jéggal man daal euh, le cinq piliers de l'islam. defaat naa ko daal kat. Mhm. Mhm. <laughs> waaw koor gi koor gi moom. Eh. Eh. bàyyi rek ma fayee ko xaalis. Mhm. yàlla nag. ku doy waar la. mun ne la warloo feneen de. waaye na ma jéggal foofu rek. moom yàlla xam na fi may waxee. Eh, <laughs> même loolu na ma ci jéggal parce que mun na la emprisonné. force doo am loo lekk. yàlla kenn du defante moom. waaw mais pour mbindeefam bi laa bañ a lor. parce que yàlla boo koy xool mu ngi ci nit ñi. yàlla nit yi la. ku tooñ nit tooñ yàlla. moo tax man su ma gisee nit ñi di saaga nit. damay tiit parce que tout est surtout la personne. yàlla dafa jël image am def ko ci nit. nga toog di ko toroxal wala di ko liggéey wala di ko saaga wala di di ko ŋaññi. xam nga luy jëw nit. Mm-hmm. mooy wax ci moom lu baax ginnaawam. Mm-hmm. te boo jëwee nit rek. xam nga li ci topp. Mm-hmm, mm-hmm. montre bi maa ngi ko eh, def nii parce que bëgguma fàtte ku tudd Massayer Diagne. Mm. sama benn patient la mu ngi Italie. ndeysaan ñi ngi xamante ci doom bu doon faju drépano SS ñii naan drépano SS du wér. du laaj leen Massayer Diagne. Hmm? kooku boo amul xaalis doomam bi deen bu yàgg il a dépensé des millions et des millions ci doomam balaa mu ñëw ci man. macha maa faj doomam drépano SS. Mm-hmm. moom may montre bi famille am yëpp ci mën lay faju macha allah léegi nag Pape Diouf chanteur bi woy na ma woy bu rëy. waaw ba tey mi ngi ci noppi nit ñi de. Eh, mayoon na ma montre. Mhm. dafa gis benn jour ma ta takk sama ma ma sumbil bi takkal bi mu dindi montre takk takkal ma. Mhm. un an tey moom laa yor. ndeysaan montre am boobu. Mhm. mardi barke démb laa dindi montre am sol bi. sol bi parce que montre Pape Diouf bi nag. <laughs> maa ko may boobu boobu deux heures mooy dix boobu ba tey. montre boo xam ne deux heures mooy dix rek. deux heures mooy dix rek la taxawee. <laughs> foofu rek ku ma laaj heure ma ne deux boo ma laaj heure ma ne deux heures mooy dix. waaw yow daal foofu nga ko léegi daal. boobu teg naa ko pourtant j'ai deux cent trente sept montres. ndeysaan damay def collection. comprendre nga. Mhm. mais bi ma jotee montre Pape Diouf. boobu rek laa doon sol. léegi nag mhm. bii moom barke démb la ñëw mais bizarrement ceinture bi dafa xaw a bon parce que j'ai perdu nag 3 kilos ci deux jours yi. Mhm. xam naa loolu la. waaw merci Massaer. mais li tax ma ñëw ak yow ci li nga xamante ne aussi mooy koor gi laataa ñuy ñëw ci feebaru siti bi nga xamante ne jamono ji askan bi euh, téye na leen loolu bëri na ay feebar yoo xamante ni ñu bëri dañ naan du tax ma du ma mën a woor ndax feebar bi yan feebar moo mën a tere doomu aadama bi woor carrément ci li nga xamante ne tey mooy dal doomu aadama docteur. nañu xam d'abord ne koor. mooy mooy solution ci faj. koor. faj bu gën a rëy ci àdduna mhm. koor la mhm. kooku moom nañ ko xam mhm. koor mooy solution bu gën a rëy ci adduna ci wér gu yaram donc ñëwul pour lor kenn ñëwul dina noppiloo machine bi dina raxas sa am purifier sa am purifier sa yaram moo tax gisoo ñii di woor trois jours rek dañuy leer waaye man dama jaaxle ci kooru Sénégal. Mm. yow koor gi yàlla mu ngi lay jàngal bu lekk lu dul yàlla bul naan lu dul yàlla bu xool lu dul yàlla bul def lu mm-hmm. nga nekk ci vingt neuf ou trente jours. xanaa kay bu paree dina am nag finalité ci yow. Mm-hmm. mais le lendemain tu recommences encore ta même vie yow sa koor nanguwul. koor bu jàppee benn yoon. Mm-hmm. c'est fini. même comportement bi ngay am. ngay continuer dootoo xool lu dul yàlla dootoo wax lu dul yàlla dootoo lekk lu dul yàlla dootoo naan lu dul yàlla dootoo fen dootoo def lu lewut. Mhm. et c'est vraiment loolu mooy koor. Mhm. Mhm. mais ngay woor di gën a doon naa fekk di mën fen di hypocrite di critiquer nit ñi di di wax ci nit ñi lu ñaw mais yow wooroo. et ñii di woor di bind message bébé. chou chichi chacha mais loolu du koor. yaa ngi ci am bànneex. koor whatsapp. Hmm. koor facebook. da ngay rek. léegi weeru koor. Hmm. du ma njaalo weeru koor. ay waay xanaa njaalo bi dañ ko dañ ko permettre yeneen weer yi. Ah, moo jaaxal ñoo fi de. <laughs> ah. waar de. weeru koor ñu muuru. Hmm. sellal. Ah, donc xam nga ndekete loolu moo loolu la yàlla permettre woon. koor bu paasee dootoo sellal. yow hypocrite nga. bu ragal xool sa bopp ci miroir nga ne t'es un hypocrite wala t'es une hypocrite ci mm-hmm. hypocrite sa hypocrisie fait partie partie des sept péchés capitaux ci mm-hmm. hypocrite place am safara la mm-hmm. muy ci religion chrétienne muy ci juive muy ci musulman fait partie des sept péchés capitaux wéeru koor li la yàlla tere nga bako nga nekk ci li la yàlla nangul noonu nga war a continuer dund nit mu ne di lekk di naan fekk daa woor. Mhm. nit mun na lekk di naan wasin sax léegi léegi fekk daa woor. du biir bi rek a war a woor. xam naa nit ñi dañ naan loolu lu mën nekkee. Mhm. ñoom te koor googu sax la yàlla soxla. Mhm. Sayyidatuna Mariam bi mu accouché Jésus. pourtant yàlla ne ko wëlbatikul nga yëngal euh, palmier bi mu yëngal ko ay dat wadd mu lekk. Mm-hmm. wërsëg na léegi léegi lekkan tàndam léegi léegi waaye ku ma dajal mu ne damaa wooral sama borom. Mm-hmm. Hmm? koor googu la ñu soxla. Mm-hmm. mais feebar bi ci mel ni. léegi nag ay ulcère. waaw yi nga xam ne moom lañ ni mooy tere wóor nit yan feebar. ulcère waa eh waay koor gi des na lu mot a jours. non ñoo la ma faj lañ ci dix jours yi. Hmm? c'est-à-dire traitement bi 28 jours la. wala 25 jours. parce que 8 sachets la. mais booy naan kat booy naan kat tàggoo nga ak ñëw leen ma faj leen wala dangeen ngeen bëggul woor ulcère feebar la boo xam ne du nangu nga xiif mhm. du nangu nga suuf digg doom ci digg bi la ne comprendre nga mhm. moo tax ñu naan mënoo woor mais mhm. man duma empêcher kenn woor ku xaar ma bindal ordonnance ne la bul woor bul woor wala tu n'es pas capable de faire les activités sportives wala nga soxla absence justifiée. Mhm. di nga sonn sa bopp. du ma la bindal dara. Mhm. parce que man je ne triche pas. Mhm. je triche pas. kenn mënu ma fenloo ci li may liggéey. parce que ci lay jaamoo yàlla. kenn mënu ma defloo naka sa dul noonu. Ah, kenn amul kenn ñi sax wax yenn yi euh, même colopathie corps moo ci gën a baax. colopathie benn bi. colopathie par exemple man wax naa ko waxaat naa ko nit ñi xam nañ ko sax benn yoon ngay naan garab di nga wér. Mhm. alors que docteur yi euh, tubaab yi dañ leen naan régime à vie. Mhm. boo ñëwee damay njëkk raxas sa biir quinze mille nga fay ulcère bi quarante mille nga wér ci quatre semaines si fii nii. Mhm. ulcère yaa ngi koy xamee fii tukulay nag <laughs> bu fii di métti ñu naan berne fii du berne de. Euh. dañu naan xol. xol fii du xol. fii ulcère la. ulcère la góom moo nekk fii. ulcère mooy estomac bi bu demee am góom. Mhm. waaw bu amee góom day gis fii ci ginnaaw muy jam mel ni pont mooy jam fii. Mhm. waaw kooku góom la da ngay ñëw faj la ko ci quatre semaines mu wér définitivement. xol fii la. Mhm. côté gauche bi. fii ci suuf ci suufu kii flanc bi. fii xaw ma ni ñu koy waxee. mais aussi moom tamit day jam ci ginnaaw fii tuuti foofu mooy euh, mais nag am na ay rajo def doo ko gis. boo amee problème kër. am na hmm. rajo bi day naan gisuma dara. Hmm. parce que rajo bi n'est pas capable de hmm. tout voir. mun nga def mun nga am ulcère sax. nga def fibroscopie doo gis dara. mais ñi nga xamante ne aussi ñu ngi jël say garab nga leen doon jox heure yi nga xamante ne moom la ñu naan médicament bi mu doon tombé bëccëgu koor geek yooyu ñooñu aussi mën nga changer seen programme. ñu mën a woor belle question dama lay naan boo dogee nga naan. ok boo reeree nga naan. boo xëddee nga naan. soo ma nee nag du ma xëdd ma ne la <laughs> amoo ci droit. parce que ñu bëri dañuy basé wu ci heure bi laa naan garab. xëdd bi c' obligatoire. Hmm. xëdd c' est obligatoire même bu dee da ngay jóg naan ndox. Hmm. c' est obligatoire mais nag man je t' interdis ngay naan garab yi fekk lekkoo. même bu dee ñett tàndam. Hmm. lekkal nga naan sa garab. da ngay dugal benn tàndam nga lekk wala ñaar. nga naan garab yi nga lekkaat benn tàndam. parce que j'ai toujours di que médicament dañ koy jël au cours des repas. waaye bul woor parce que da nga war jël garab. waaw xaaral <laughs> man kay sama bopp sama bopp la. waaw loo tere nit dinaa jéem a dem Makka nag. Mhm. mun na am mais du tax cabinet bi tëj. Mhm. il y toujours des gens ici. Mhm. et je vais par appel vidéo. mun ma dem defi 15 jours Makka. pour jéem a woor ma jom tuuti. <laughs> naa bu la mbokk séeréer si déggee moom dinañ la xaw a sànni xeer. ma jom tuuti c'est que dara tere wu ma woor nag lu dul franchement j'aime pas insulter les gens j'aime pas crier sur le gens j'aime pas être xam nga ñàng ci kanam nit ñi. Mhm. te dafa am ay comprimés yu may jël pour bañ a mer. Mhm. la famille dol ay tracé dol bàyyi naa tracé dol léegi euh, mais damay jël. Euh, beneen bu tudd bu tudd Tedor rapide. Mhm. waaw Tedor rapide. Mhm. dama koy jël su ma ko jëlee franchement du ma mer. doo mer waaw dama koy expliquer balaa nit ñi naan damay jël garabu garabu dof. <laughs> macha allah docteur xam naa ne kàddu yooyu am na solo lool parce que mënul woon ñàkk aussi ñu dooree ko indi ci ay leeral ndax bu dëgmalee rek dinañ ci dégg kàddu yu ne. makk dafa am benn bi ma demee makk daal euh, keroog boog. Mhm. daaw dafa am benn journaliste bu ma logé sama néeg. ñàkk jom. mu dem naan xaadim eh, jum mhm. que damaa dof dama mhm. jël comprimé dof tracé dool quoi <laughs> te bi expliqué ma ne lii dama koy naan pour bañ mhm. mu dem ne docteur dafa garab yi yoon <laughs> nag. Mm-hmm. macha allah naa leeral yooyu am na solo bu baax baax baax ci ñi nga xamante ne ñoo ngi bàyyi xel à travers Sénégal Buzz di fàttali rek ñu ngi dalal docteur Abdoulaye Diallo ci leeral lépp li nga xamante ne rek askan wi war nañ koo bàyyi xel jëriñu ci. bu ñu bàyyee xel ay waxtaanam ku ne dina ci jëriñu waaye aussi euh, beneen problème boo xamante ne daa toog ci digg askan bi mën naa ne ñu mu laalul ci askan bi bëriwul docteur ndoxu siti sonal na askanu senegal siti ñëpp ko mhm. mais ay degré la rek. ay degré la. waaw am na fu muy àgg na moom fu muy àgg moom vraiment baaxul. siti mhm. day joxe yaram bu tàng. siti mhm. day tax say loxo di tooy wala say tànk di tooy. siti day joxe pied d'athlète diggante baaraam tànk yi am lu weex. am ñoo xam ne sax weexaay boo dee dem bay xeeñ. siti day indi xasan ak heure moo tax ku am ay xasan ay er heure mhm. di jël garabu siti ñu naan dina ko faj day kii lay faj mënul mhm. waxu dëgg mhm. siti bi ci biir lañ koy faj germe bi mu ngi ci biir deret bi fii la tubaab yi tëlee parce que xamuñu liy siti moo tax mënuñu faj arthrose siti bii day joxe arthrose day wowlu yukk yi ba jox la arthrose man même la joxee Eh, rendez-vous pour defal la protège ñëwal man ma faj la même bu ñu la nee yax yi dañuy laalante ñëwal ma mhm. faj la bu ñu la doon injecté bàyyi injection ñëwal man ma faj la hmm? ci douze semaines trois fois quatre semaines te siti cent cinquante mille rek nga nga wér xaw ma kii arthrose arthrose parce que siti bi trente mille ngay jël siti mhm. ngay njëkk jël trente mille mhm. après nga def trois mois d' arthrose mois bu nekk quarante mille la yomb na. même polyarthrite rhumatoïde kenn mën na ko faj fekk fajoo siti. fekk fajoo siti. siti day indi arthrose siti day indi polyarthrite rhumatoïde siti day indi rhumatisme. Mhm. siti day dagg karaw. siti day xonk la bët. Mhm. siti mooy tax nit ñi di chauve. Mhm. siti mooy yàq maniw. bëri na ñoo xamante ne mënuñu am doom. ñu dem defee spermogramme. ñu ne leen dañoo am azoospermie wala asténospermie wala tétanospermie mhm. wala oligospermie et cetera mhm. siti moo ko indi tubaab xamul luy siti donc duñu mën a faj loolu mën a faj loolu day dem ba réduire le nombre de millions que tu as pour faire mhm. parce que tu dois avoir minimum cinquante millions ba cent pour mun a am doom te millions de spermatozoïdes yooyu yëpp benn rek la mooy dugg ci ndaw si. Mhm. léegi mu ngi am asthénospermie mooy walax jaani dañoo tayal. tayal donc pour du du duñu duñu dañuy tayal pour dem dugg ci. ci mhm. wu jigéen bi. am na yoo xamante ne nécrospermie dañuy gaaw a dee. Mhm. am na yoo xam ne azoospermie mooy millions yi doyut. te loolu lépp cité koy indi. waaw dafa am yeneen signe. am na euh, tétranospermie am na hyperspermie am na. hypospermie yooyu yëpp am na. étude bu bëri dañoo jàpp ne xasan la wala nga gis ay. non waaye dina dem ba. tere am da ngay faj d' abord siti bi ci biir ba mu pare. Mhm. après nga faj ci kaw. dégg naa ci rajo benn waaye ne day faj siti 3 mois. Mhm. quinze 15000 la koy fajee bàyyi leen di rey nit ñi. te yéen tamit bàyyi leen di bëgg lu yomb. bëgg lu surtout Sénégal dafa bëgg lool. te 3 mois kenn du ko naan garabu olof. te yan garab lay jox nit ñi mbaa du ay reen boobu moytul dee de. te dèjà nañu moytu gars yi ay reenu dànk. Mhm. reenu daqaar la ñuy jox wala reen yi léegi comme commencé di wax reen baaxul dañ koy dëbb. Mhm. am nay machine wolukaay yi ne fii ñu dem dëbb ko. Mhm. jusqu'à présent ay reen la rek. donc amul dosage yooyu dafa gaaw di yàq ren. te yàq ren. dafa am ay effet secondaire bu ngi mel ni rek ñii am polyarthrite rhumatoïde wala arthrose ñu leen di jox aussi ay corticoïdes. corticoïdes yi ñëpp xam nañ day yàq. garab bu fajul lore man xaw ma naan garab tane déedéet man li ma xam mooy naan garab wér wér man faj lay def mm-hmm. tane la kenn mm-hmm. yàppaade tane nga demal déedéet mm-hmm. wéral nga dem nga dem man loolu laa xam docteur bëri na ñi nga xamante ne seen i jafe-jafe sëy ñàkk am doom lu bëri siti waral ko ba am na ñu siy divorcé maa ngi maa ngi maa ngi boobu noonu dama dama dama fàtte mais siti mm. day tax ba jigéen bu ëmbee sax. mu tuuru mu tuuru. tubaab wala ñu lay naan ay grossesse extra utérine. Mhm. wala fenkat yi ñii di naan dañuy sedd la naan ay rab la. ay rab. Mhm. Mhm. terewul kenn doom. parce que rek génte nga see góor su le mi gis nga deret. waaw rek nga naan rab la rab la. arrêtez ça. xam nga nit ñi da ngay dem ba am crise palu man par exemple neuro palu mhm. man du ma faj paludisme mhm. mënuma ko mhm. mais nag am na garab bu ma doon naan boobu man moomuma ko composé wu ko beneen waaye bu ma wóolu ci garab moo ko composé jox ma ko contre le coronavirus boobu moom mën na faj palu donc kooku mën na faj palu mais man mënuma faj palu nekkul ci sama barem comprendre mhm. nga. am boo amee neuropalu dangay gis ngay waxtu ñu naan seytaan la. Mm. alors que neuropalu la. am na ay garab yu ñu lay suuruloo sax bu ñu la ko suuruloo da ngay da tudd ay tuuru nit. Mhm. ñu naan la diw moo bañ. diw ma jàpp xam nga yooyu c'est des conneries mhm. mu ngi mel ni am na ay nit yoo xamante ne am na benn garab bu ñuy ñëw léegi ci benn dëkk ñu soo ñu sóor ko nii dangay gis dëkk bi xale yëpp ay feebar. comme ça ngeen di indi xale yi. mu leen di faj ñu mën a ay dil la rek. ok am na ñoo xamante ne boo demee ci seen kër yi nga gis mu bëri fees dal ak ay patient mhm. ay fajkat yoo xam ne ay patient ma xamal la benn affaire. Mhm. dañoo jox rendez bu patient yi chaque jour ñuy ñëw. yow dix personnes bu ñëwee tey. Mhm. chaque jour nga recevoir dix personnes. d'ici vingt jours combien de personnes vont vont être 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 <laughs> c'est même pas rentable. oui nit ñi naan nit ñi dañ koy bëri mais kooku amul sax xaalis. Hmm. tuur lay wër. tuur lay wër. yow doo jox nit ki garabam mu dem naan këram. walla ñu naan chaque jour da ngay ñëw sangu fii loolu fu mu amee. sama kër ngay sangu garab loolu fu mu amee. bu dee jigéen la c'est juste xamal ne ay caméra ñu ngi ci douche bi sa taat dañuy xool rek. Hmm, hmm. am na sax bu ñu bëggee vraiment mu mu mu mu mu leer leen dañuy naan boo toogee ci douche bi pënk ngay jàkkaarloo nangam nangam da ngay ubbi sa tànk tout ça ñoom ñoo la bëgg a xool c'est des bandits xamoon naa benn waay gaa ñoon léegi sax loolu doon def sali hmm? waaye xam nga man fu ma dégg xam-xam ma dem uuti. Mm-hmm. ndeket li mu doon bari mbooloo yépp kaccoor la fenkat la dafa amoon garab bu muy soo rek nit ñi di ñëw mënul faj kenn. Mm-hmm. fajul sax. ay saafara yi saafara dafa mën na faj rhumatisme saafara dafa mën a faj hémorroïde saafara dafa mën a faj prostate saafara dafa mun na faj nerf sciatique man ñii di faju polyarthrite rhumatoïde wala hernie discale dama lay naan premier mois bi day metti dama lay bindal saafara bi may naan paracétamol alxuraan la ma ne la ah de ci guux di raay fi muy metti day sedd mm-hmm. mais saafara bi faju la garab bi moo lay faj dama wax nga dëgg mm-hmm. mu mënoo di faj hernie discale nga war a décoincer benn nerf nga bëgg naan garab yi mu sedd c'est pas possible tey hernie discale boo ñëwee ci yenn pharmacie di jënd ceinture dañu naan dama ci docteur Diallo. mu faj tey jël rendez-vous opération ñu war la opérer hernie nga xam ne risque la. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañ leen naan carrément demal petit mbaaw ci docteur Diallo et je les remercie. Mm-hmm. c'est pas que dama leen di remercier parce que indi nañ ma patient non c'est parce que def nañ un grand geste ils ont sauvé des vies. Mm-hmm. man ñu ñëw ñu bañ a ñëw sama yoon new ci man médecine bi dundalu ma. Mhm. j'ai d'autres activités. Mhm. plein macha allah gis nga bu ñu paree léegi léegi gis nga Fuuta laa jëm. Mhm. war a ñëwaat ci guddi gi. waxtaan nañ léegi c'est vrai. Hmm? il est 17h. dama wa dem Fuuta ñëwaat fii balaa 2h du matin. incha allah yal na la yàlla teg ci yoonu jàmm ah, waay. ay eh, eh, yow xam nga. dafa am lu may lu may lu may defi foofu. si wax wax nga ma. comprendre nga man sama 3 jours de repos yi ci laay gën a sonn. ci ngay gën comprendre nga. donc euh, am naa yeneen ressource mhm. te man tedd naa ba pare. Mhm. su ma liggéeyuloon sax damay dund. Mhm. damay happy. macha allah. ku am raffinerie. ku am raffinerie. kooku dara daf ko manqué. raffinerie bi di la jox un milliard trois cent millions par an de bénéfice. sa bénéfice personnel. ko leneen lu waay def rek euh, yaa ngi ciy wut yàlla. ma am ko ci beneen pays nag pas Sénégal quand mm-hmm. Mm-hmm. am na ñuy regretté euh, li ma li ma ma fa yóbbee sama alal de. bu mm-hmm. doon seen de tey ma def ko Sénégal. <laughs> parce que ça ça non seulement ça génère des emplois mais dangay ngay fay état bi impôt yu bëri ku ñàkk. ñun ñoo ñàkk kay. ndax kay bi ñu sañoon mu ni benn cimenterie ba léegi cimenterie boobu ba léegi kenn inauguré ko. moom dafa bay dafa bañ a fay impôt. Hmm. léegi yow boo demee di def nga am quota di jaay ciment. Hmm. waa impôt dem xool ne yow kebe jël nga 1000 camions ci at bi hmm. ñu taxé la impôt est que loolu c'est normal. yow fi may jëlee ciment kenn fayaloo ko impôt di. léegi man lu tax may fay impôt. doy na waar de <laughs> macha allah xam naa ni leeral yooyu am na solo lool lool bu baax a baax. loolu dama ko ci glissé rek pour xamal ne ne que. dëkk mhm. bi. y a pas que la médecine quoi. waaw jàll bi ñuy déglu. c' est que jàllo rek euh, fajkat quoi. Mhm. waaw bu nekk ci yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen la. Mhm. waaw waaye nañu xam ni faj bi mission la. bu ko suñu actuellement nag actuellement man. sama ambition mooy dominer le monde médicinal. kooku moom c'est mon objectif. Mm-hmm. mais tout en restant chez moi. Mm-hmm. du ma dem fenn parce que su may dem rey. Mm-hmm. ki doon faj si sida. rey nañ ko xam nga hépatite boo koy faj. waaw garabu hépatite boo ko doon naan boo amee sida dans trois mois nga wér. garabu hépatite day faj fajal. yoo xamoo hépatite B virus am ak virus sida c'est même chose. yow hépatite moo gën a jafe faj ko sida. femme boobu doon faj sida Amérique rey am na benn congolais bu mel ni man. Mhm. kooku sax maa ko ëpp valeur sax maa ko ëpp pouvoir sax ci médecine. Mhm. mais amul luñ ko deful mais moom il a de dañ ñi ko jegee dañoo déclaré il est décédé pour mu am jàmm. man de décédé wu ma. Mhm. man man pareegu dee. man hmm. de pareeguma dee man dee daal na jaar fee ma jaar nga jaar fee nga jaar fee te ragaluma dee nag aussi parce que xam naa du ma dajek moom non xam doo moom nag jaru nga nga koy ragal da hmm. nelaw nga dee wala buy ñëw si à la minute loolu dafa daa jaar ragal hmm. yoo koy ragalal da mujj bu soof mujj bu soof ngay ragal dee fekk yéefar nga dee fekk mu fekk la ci lu neexul yàlla boo pare dem safara loolu ngay ragal macha allah docteur xam naa ne kàddu yi am na solo loolu ci leeral yi nga xamante ne aussi leeral nga ko ci ñaari ponk yi nga xamante ne rek waxtaane nañ ko ci site yi ak li nga xamante ne aussi moo di ci jafe-jafe yi nga xamante ne nit ñee ngi koy bëgg a boole ci koor gi. site yi moom maa ko daq faj ci àdduna bi. Mhm. te du yàgg. Mhm. waaw sama fajum site yi ay 12 jours lay doon. waaw foofu laa bëggoon a ñëwee rek. durée colopathie maa ko daq fa ci monde bi benn yoo ngay naan garab mhm. ko daq ci monde bi. te li nga fay cherul. raxas biir 15000 hémorroïde 30000 ça fait 45000. Mhm. yomb na de. yomb na loolu te nga am 40 ans hémorroïde nga ñëw ci man nga wér. même pas 3 semaines. Mhm. ngóor maa ko daq fajee duñu parce que boo amee siti. Mhm. sa ngóor di wér. il faut ma faj la siti ba pare. boo amee siti da gaaw a daanu. éjaculation précoce. ci siti lu jógee. kon ñu bëri ñu ngi jàpp ne ñoom dañoo. impuissant siti leen jàpp. tout impuissance sax faible. faible ok parce que impuissance ak faiblesse bokkul. dafa am différence ok. man boo ñëwee dama lay déglu boo ma ñëwee danga am faiblesse sexuelle sax dama lay naan faiblesse sexuelle nga am wala gaaw daanu nga am. Mhm. boo amee faiblesse sexuelle rek nga xam ne day jóg mais après da gaaw a rees kooku da ngay raxas biir borom nga faj ko siti mun na dem sax loolu wéraale nga bañ ko faj ngóore bi. Mhm. mais lii lay jiitu d'abord lii mooy jiitu mu faj ko ba il faut avant de soigner une maladie il faut d'abord soigner la cause. Mhm. man loolu noonu laa ko jàppee. Mhm. leneen li gaaw a daanu. Mhm. suñu la joxe garabu de gaaw a daanu te fajoo li ko indi nag dans un mois mu ñëwaat. ñëwaat. am na ko jógee ni Italie war a jël garab garab gaaw a daanu Fuuta lay dem ma ma ne ko siti ngay commencé. mais bi mu ñëwaatee jëlaatul gaaw a daanu siti bi la jëlaat. kon xamoon nañu parce que dafa ne cité gis na ci résultat. kon mooy problème yi nga xamante ne yu bëri moo koy indi ci si mooy base bi. cité 50 pour cent demal li mun naa ne cité moo koy indi man fajkat laa de. Mhm. bu am fulla ak fayda nag. Mhm. man koo ngi sax xam ne man dund ma fenn. <laughs> te rappelles il a deux ans newoon naa ñii di mbili mbili mbili mbili ci wax nga ma ko ya a deux ans. noppi nañu jamono jii de la ñuy dégg. Mhm. parce que xamoon naa ne nekkuñ ci dëgg. xaalis lañuy wut rek. Mm-hmm. xaalis rek lañ doon wut. Mm-hmm. am nañ ko walla am nañu lu tuuti am nañu kër pare nañu quoi. Mm-hmm. nit ñi cest à dañoo bëgg dañoo bëgg ku leen nax. man de peut-être sama jikko soof na trop parce que sama kanam dafa. <laughs> kii comprendre nga damaa ñaaw nag il faut nit ñi comprendre loolu <laughs> man naqariwuma naqariwuma c'est-à-dire man boo ñëwee dama bëgg nga ñëw ngay wax ma la mhm. jarul nuyoo yu bëri asalaamaaleykum waaleykum salaam bismillah su ma la waxee bismillah jarul ngay continuer di ma nuyu waxal li la indi mhm. li la indi bu dee loolu la su ma la joxee man ne la garab bi temps ngay fay amul fay consultation amul fay ticket xaw ma loolu man mhm. ma ne garab bi lii lay jar nga jënd sa garab ñu expliquer la mode d'emploi nga dem nga naan lu fi jar yeneen su ma gisee tu es correct y' a pas de problème on peut de numéro. Mm-hmm. mais bul ma sonal ci ay téléphone j'aime pas parce que man booy wax ak man lu am ful ak fay ngay wax ak man man du ma téye téléphone ak ñi ñi ni ma gis nit ñi. Mm-hmm. même booy pou bi yor téléphone. mais man man ma loolu <laughs> c'est grave. Mm-hmm. su ma gisee sax jigéen ñi ñi ñi dem ma ma yeb benn jigéen sama oto et ça yeeg sama oto nekk ci téléphone ma ne ko sama oto nga nekk. fii bureau la tegal sa téléphone bi nga fay ko wala nga dugal sa biir saag lu ma yóbbale te yàlla tax ma nekk di wax ak sama un ministre wala kilifa nangam nangam après nag mu dégg sa baat wala sama jabar mu dégg sa baat dañuy naan sama copine bi mm-hmm. xaw ma sax lu tax ma ma a des choses je ne digère pas mm-hmm. mm-hmm. euh, man c'est-à-dire man la xaw ma mas xaw ma maslaa dëgg laa xam après ñu maslaa. Mhm. waaye dëgg ñëw ñu nëbb dëgg bi def maslaa je suis pas dedans. Mhm. sëñ Tuubaa kese fees sama bët. amul leneen. Mhm. lundi samedi dimanche lundi la ñuy liggéey. samedi dimanche. lundi huit heures quatre heures. huit heures bi sax c' est pas trop sûr. parce que mun naa ñëw neuf heures. quatorze heures daal. moo man kenn moomu ma nag. waxuma kenn nga ñëw six heures du matin. xanaa mën nga teel a ñëw na nga bindu. chez moi c'est pas compliqué heure boo ñëw da ngay bindu. li ngay xaar du yàgg. ñu lijjantale liggéey bi gaaw na nga dem sa yoon. c'est pas comme avant nga xam ne nit ki day rang huit heures ba quatorze heures doog a dugg non loolu jeex na foofu. jeex na foofu non loolu c'est fini. Mhm. nañu moytu nag mhm. mhm. ku tudd Ismaël. je ku tudd Ismaël bokkutul ci man. te mu ngi arnaqué clients yi. Mhm. je le répète haut et mhm. comme am na benn booy aussi bu tuddoon mënu. Mhm. kooku moom yaa deux ans da doon arnaqué booy yi rek da doon arnaqué patients yi rek surtout ñi nekk Europe waaw parce que j'avais fait l'erreur de leur donner le, le, le téléphone nag téléphone biir bi ñu koy gérer. erreur bu mag laa defoon. kii nii borom numéro bii 77 991. 99 53. moytu leen ko. nekkul ci man. Mm-hmm. arnaqueur la. Mm-hmm. truand la. Mm-hmm. xamul garab xamaanul garab nekk ci man deux ans xamul sax. garabu colopathie bi xamul sax les composants c'est quoi. xamul. ko y a médicament da dedans. ñoom mosuñu composé seen garab yi sax mosuma ko composé seen seen kanam. seen kanam ni ma leen amee ñoom ci biir kër gi noonu laa amee ñuy composé garab. sama doom sax bi nekk man xamul garab six ans. Tijaan muy nekk ak man six ans xamul benn garab nu mu tudd. xamu ko. garabu xaay sax xamul nu tudd même garab yi may composé pour cat xamu ko pour pourtant xam ne résultat yi ñuy def. Mhm. pourtant gis na su ma sangee nit cat rek mën naa am alal. 35 mhm. da ngay fay chez moi sangu cat. cat wala papier étranger yi. Mhm. pourtant gis na saafara bi sax moom mën na bind mais mosuma ko bindloo saafara bi pour ñi war a am papier étranger. 35 mille nga am papier. mus musuma ko woon parce que damay bañ ma dee suba. Mhm. mu xamoon benn garab kese mu toog ci bureau bi naan day liggéey daanaka nit ñi wala dere nit ñi loolu laay bañ. Mhm. man j'ai fait huit ans mhm. sacrifier sama vie di jàng. ma bàyyi doom bàyyi jabar bàyyi yaay bàyyi bàyyi kenn waxatul ak man. kenn waxatul ak man moom miti yaa ci la bàyyee jàng parce que amul ku ko jox six mille francs inscription. bi ma ko waxee maa ngi rappelé benn mois de novembre ma ne ko t'inquiète pas du bàyyi nga jàng parce que kenn nangu la may six mille mhm. y a pas de problème balaa mois de novembre déwén di nga am titre foncier Dakar mois d'avril ma jëndee ko kër Dakar sama kër Petit bi ci yàlla ko may. Mhm. comprendre nga. Mhm. donc euh, nit mënul jàng souffrir jàng dem fu ne jàngi. ñëw di xale bu ndaw ñëw ci ci ci ci kër gi rek. Mhm. naan suba eh, damaa doon xam-xam yi sama baay loolu loolu. loolu je suis pas dans ces moi. macha allah. ah <laughs> <laughs> tey macha allah man daal mun naa ne mun naa traité lépp. Mhm. ba mu des rein. Mhm. rein xaw ma ci dara. bët xaw ma ci dara. nopp xaw ma ci dara. bëñ bëñ. Mhm. xaw ma ci dara. wallaay wax day leer de. <laughs> tension li ma ciy def sax damay normaliser tension. mais mhm. mënu ma garanti kenn mën nga wér ci tension mais xam naa ne moom boo jëlee garab bi quarante mille nga naan ko. Mhm. en moins de trois semaines dootoo jël garabu tension. macha allah un an bi moom maa la ko assuré. li ñuy faj mooy colopathie. hémorroïde cystite nerf arthrose rhumatisme polyarthrite coxatrose C1 ba C7 yi C1 C2 C3 boo defee scanner. L4 mhm. L5 L yi yëpp dañ ko dañ koy faj. diabète pancréas boo bëggee renouveler sa dënn. Mhm. raxas ko. Mhm. boo bëggee renouveler sa kër nga kër bu bees cinquante mille da ngay fay. boo bëggee renouveler sa foie. cinquante mille boo buggee bëggee renouveler sa pancréas. cinquante mille soo bëggee ngóora. quarante mille xam nga gaaw daanu quarante mille. siti trente mille la. Mhm. Eh, man rek maay wax samay prix nag. waaw. man rek maa ko ñeme. Mhm. man rek halitose mooy mauvaise haleine. nga dem fu nee ci àdduna munoo wér cinq dix ans. Mhm. boo ñëwee man damay raxas mbaq bi ba pare. soo amee hémorroïde interne ma faj ko ba pare. ma jox la garab halitose mun nga faj noonu sax nga gis halitose bi dem. macha allah mun nga naan tous les médicaments d'halitose nga bañ a wér parce que jaaruñ fi ñu war a jaar. te bu amee hémorroïde interne mun na joxe aussi mauvaise haleine. Mm-hmm. wala sinusite buy dem ba xeeñal bakkan bi. Mm-hmm. comprends nga mm-hmm. sinusite mun nga def tous les allergologues du monde doo wér nga ñëw ci man ci trois semaines nga wér. comprends nga. bon boobu metti par exemple mun na aussi nekk à cause de biir. mu la joxe siti bi mu dañ. am na ñuy am tout le temps buñ bu metti fekk sinusite chronique la aussi loolu aussi bu ñu faj sinusite bi mu wér. am ñoo xamante seen bët yi dañu xonk tout le temps di jooy tout le temps loolu bu ñu fajee siti bi mu deñ mu deñ am ñoo ne seen bët day lëndëm mais bu ñu jëree garab colopathie bi lëndëmaay bi deñ comprendre nga. Mhm. trompe bouchée fibrome dañ lay faj sans opération. sans opération kyste ovaire. Mhm. kyste tout yooyu yëpp dañ koy faj sans opération. Mhm. hernie hiatale dañ lay faj sans opération. hernie inguinale dañ lay faj sans opération. hernie discale dañ lay faj sans opération. prostate maa ko fi mën moom ci àdduna prostate waaw du ma laal sa tubay garab ngay naan nga wér mooy prostate bi solo lu bëri mooy bu tëju bi mooy bu tàng bi mooy bu néew bi mooy bu am bi mm-hmm. mais bu am cancer xeer yi mm. benn maa ko fi dax mm-hmm. dama lay sàng cat la benn richesse man su ma la sàngee cat sax soxlatoo benn mm-hmm. mille la def cher waaye gis naa ne commerçant yi moom ko ko jël. Hmm. chaque mois nga ne dollil ma parce que da ngay am ay distributeur ay fournisseur rek. wala sa place ñu yàq ko. Hmm. doxatul <coughs> ñëwal. 35000 hmm. ngay fay ma defaraatal la place bi lépp di dox te bàyyi leen di jël ay bayre njaay wala bayre pour am succès fekk seen yaram daa tilim. nit day bëgg yaramam d'abord. aar boppam protéger boppam ba pare. doog a dafay bayre. protection moom maa ko ci mën. Uh-huh. désenvoûtement maa ko maa maa man lu may def rek je suis. tu es bi. Uh-huh. ko yàlla moo ko defee noonu. Uh-huh. lu ma mënul nag du ma ci dugg. macha allah. man ay sëriñ yi mbébé bébé <laughs> ñu bëri hmm. maa leen di faj bi. non xam naa après. maa leen di garab après dinañ am benn jotaay boo xamante ne ci wàllum lasraar la ñuy waxtaan. docteur sax yu bari maa leen di faj. Ah, donc euh, voilà quoi. samedi dimanche lundi la ñuy liggéey Petit Mbao. talaata mooy mardi ci ngoon. Mhm. Touba. Touba mardi ci ngoon à partir de 15h la ñuy liggéey Touba. macha allah waxuma mardi matin ku ñëw matin moom ci bunt bi nga yem ba ma yeew. <laughs> ba nga yeew waaw. <laughs> macha wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa